jaajëfal alxaaji sëñ Mbàkke Sylla mu nekkoon ci jataay bi ñaanal ko tawfiix sutura ak teraanga ak poche def dara sëñ Mbàkke démb bi njëkkati jataay bi noo ngi woon ci xissab Muusa ak na ci xewoon ca jamono te itam taarix di ko nekk ci li ba tey saa bu ñu àggee ci ashura xew-xew yi ci xew yépp boo ci jël rek defar nam pénc moo tax ñu dégg suñu doyen xaaji Moustapha Guèye yàlla na ko yàlla yokki wér moom tam mu netti nekk ci Karbala daa ngeen dégg maam Mody Jimbiri daf daan karbalaa ba far yuuxu fa wala mu xëm waaw ay nettali yu bare bare bari ñenn ñi jaar ci gàddaay ndax niñ ko taqaleeg yëf yi ma nekkoon kon démb ak bërki démb maa ngi nekkoon ci xis xissab muusaak ak na ak pénc mi Firawna dafa lànkal yàlla jubbu boppam lay deme ak pexe boppam Muusaa nangul yàlla lu muy def moom moomay ànd Xaaruun ak Haamaana ñu ngi ci biir waaw démb bi bi ñuy indi programme muusa mooy sunu boroom dafa wax ne daa bëgg teggi loxol noggatu ca kaw ña ñuy noggatu defar seeni jikko ba ñu nekk ay kilifa mu fa bu yëf ya teg seen loxo lu am solo la waaw teg teggi loxol noggutu ci seen kaw waaw defar seeni ko ba nekk kilifa mu jëlee fee teg seen loxo moo tax yëf yi tege ci loxo yàlla du ko teg ci n'importe quel loxo non lu yàlla jële ci loxo di ko teg ci loxo day lekk day fekk loxo yooyee innal arda lillaahi yorisu ibaadiya saalihuna salaaxiya googu day am sinon yàlla du ko teg ci loxol kenn moo tax penc mi xëccoo beeg politique beeg yooyu yàlla def ceeb bokk daara ji def ceeb bokk sharia def ceeb bokk buñ leen ci boolew duñ dem déggal wax yàlla jure ji rek wa nuridu an namunna ala lasina studifu fil ardi muy benn wa naj'alahum a'imma muy ñaar wa naj'alahumul waarisiina muy ñett ne dama bëgg noggutu jeex ci pénc mi waaw dama bëgg noggutu jeex ci pénc mi ñi dëggut wala ba xam noggutu noggutu mooy ëpp la doole te di la ko wan loolooy noggutu ëpp la doole te di la ko wan loolooy noggutu bu ñaaral bi wa naj'alahum a'imma ñu defar seeni jikko yar leen waaw yar leen ba ñu nekk yor jikkoy kilifa doo saaga ci mbedd doo wax lu bon doo joxor bi doo këpp kees doo parparloo nekk kilifa ne dégg fi nga ne dégg mel ni ñi xam su ko defee wa naj'alahumul waarisiina ma jox leen li ma bëgg a joxe waaw ma jox leen li ma bëgg a joxe waaye bu yooyu amut li ma bëgg a joxe duma leen ko jox hmm? waaw sunu magum daara sunu sëriñ sëriñ mbay si abdu njool fuuta <laughs> yàlla da yàlla yokk wér bu jàngale njàpp lu lay wax nee na sunu borom li tax mu nuy jàppaloo wala yutimma ni'matahu aleykum moo tax waaw raxas sa bool ba mu set ne yàlla tibbal ma daf lay tibbal waaye bool bi setut taq na suuf wala gëj nañ koo raxas wala des naw ñam nangam nangam sunu borom du ca def dara ñeenteel bi ci programme Moussa wa nu makkina lahum fil ard mooy ñeenteel bi wa numakkina lahum fil ard ñu am ak jàppandal ci suuf si jàppandal ci suuf si wa numakkina lahum fil ard waaw muy ko bëgg terrain am kenn du jaay loo moomut kenn du jaay lu bokkut ak li ngay jaay boo nee parcel Assainies ku fa dëkk du gis ndox mu taa ndax yaa ko wax waaw boo ne dëkkuwaay yi baax na dagg terrain jaaye ko nit loo xam ne dundam gi yépp ci fay terrain bi la loolu métti na sunu borom da ko fee bëgg jële waaw ku fee bëgg jële lu metti la te it wanu makk ni lahum fil ardi dafa bokk ci li jur ci dëkk bi léegi waame wi waame wi ndax jamono amoon na waame amutoon jamono amoon na waame amutoon ñu jékki-jékki waame tàmbalee am ba fii nu toog ba fii nu toog léegi tey bi waame xewee Dakar ak léegi toll ci fanweeri at wonu wa numakkina lahum fil ard waaw mooy bi bi bi taw di taw bi taw di taw day saxal gàncax di màggal gàncax waaye di toog fenn di nu fa xaar moom taw ku sérieux la bu saxalee gàncax gi màggal geneen gàncax gi léegi nag day am fu wala ngaan dem fa toog fa ca xur ya moo tax suñu borom defoon ay xur baatu xur mooy tekk zone de captage zone de captage grand boy jaw zone de captage daa war a am ci pénc bi muy barab boo xam ne kenn du fa dëkk duñ fa def dara lu tax parce que ndox maa fa bëgg a dëkk buñ ko soxlaa fekk ko fa moo tax yàlla nun lay bindee àdduna xur ak joor ak tund euh, ndox maa ngay dawee ca tund wa ñiise ca joor ga taaxe ca xur wa waaw kubar ndox maa ngay dépare ca tund wa ndax tund muntati ya ndox dem ca joor ga ñiis fa dem ca xur wa toog fa mu jeex wa numakkinu lahum fil ard techniciens yi nga xam ne ñoo jàng xam-xam boobu bu nit ñi dëkk mën nañoo dëkk ca tund wa hmm, waaw mën nañoo dëkk ca joor ga waaye xur wa du dëkkuwaay xur du dëkkuwaay boo doxalee santiment ba bàyyi nit ñu dëkk ca dëkk ca xur bu ndox mi dalee ci tund wa danaan ko eh yéen ñii dem leen ca joor ga ndox ma dem ca joor ga mu ne ndox mi ci des dem leen ci xur wa xaar fa nit ñi ndox ma dem ca xur wa buñ fekkee ku fa dëkk ñoom ndox mi duñ ko wax ni jógal déedéet dañuy dugg rek ñoom ndox mi war a toog waaw bu ko defee toog ca ndox ma toog ca lal ya toog ca ëtt ba toog ca mbedd ya macha allah léegi ki leen bëgg a jàppale wa nu makkiloom fil ardi la muy njëkk a def mooy mu gis ne ñetti fa ñetti place moo am tund wa joor ga xur wa tund dëkk am na jàmm joor ga noonu ña ci xur wa nag techniciens yi dem ne leen kaay leen ñu génne leen yóbbu leen ca joor ga wala ca tund wa defuñu ko at mu jot luñ ca mën a def ci milliard du feeñ waaw du feeñ mukk nag du feeñ mukk nag te su boobaa <laughs> li yàlla xam doy na lu am solo la loolu bu dee bu dee Moussa moom xam na programme boobu bu dee Moussa moom programme boobu ah, Moussa xam na ko abo ah waaw daara ji jàng nañ ko lu leen ko jàngal déglu gi ñuy déglu sunu boroom mi nga xam ni moo bind àdduna bind nit cëppeel ko fi bind ndox mi bind suuf si yéppi dox ci ndigalam bu nit doxee ci ndigalu boroomam te mooy programme Muusaa bi daal am jàmm ay mbokkam am jàmm bu nit doxalul loolu nag du am jàmm ay mbokkam duñ am jàmm du noppalu ay mbokkam duñ noppalu waaw waaw lu rek la kat fi ne dëkk bi wartoon na taa wala dëkkuwaay yi wartoon na taa waaw nun ne nu géej gi jege waaw ne nu géej gi jegee ñi wër technopole ni mu leen jege ñi nekk wàqi naan ni mu leen jege technicien yi walla technicien bii di Moussa nee mën naa dindi ndox mi nit ñi ci ndox mi wanu màkki na lahum fil ard ku ne dëkk na nga dëkke bu tawee ba noppi ndox mi dem Moussa nee na programme boobu am na ko muy quatrième quatrième point ci programme <laughs> cettet xam naa journaliste yi war nañoo war Moussa euh, mu wax leen programme am waaw Moussa luy sa programme mu ne an mën na àll si nistudifa fil ardi sunal si bind wa najalahum aima ñu bind wa najalahumul waarisiina ñu bind wa nu makkin lahum fil ardi ñu bind mu ñeenti point waaw suñu waxtaan ba mag euh, bubakar Diallo ca koor ga ndeysaan ndeysaan lan la yonent bi indi ci programme mu liggéeyu ndaw ñi seete ndaw laaj bu rëy waaw Boubacar Diallo moo ko laajoon yàlla ko yàlla yokk wér hmm? waaw waaw laaj bi kër yi lan la yonent bi préparé woon pour liggéeyu ndaw ñi <laughs> tt kenn mësu koo gisi rek kon Moussa ngi wax programme léegi nag ndax ñi nga xam ne ñoo ne ci réew mi te bëgg falu ndax ñi ñuy won seen programme yu mel nii waaw ndax programme ci réew mi mi ngi mel nii lii laa bëgg a def ak lii ak lii nii laa koy defee la ci tege mooy bi Moussa di jeexal bi muy lim programme yi wa nuriya firawna wa haamaana wa junnadahuma minhum maa kaanu yaxdaruun danaa wan Moussa danaa wan firawna ak haamaan na moo jiite système ba haamaan mooy premier ministre junuduhuma mooy soldaar sa kaaraange gaag ñuy def mbirum sécurité ak ñoom seen yooyu lu tax mu lim ñëpp mooy boo boolee lépp taxul ñu mën a dékku doole yàlla kon yàlla day bokk rek su bokk dara du sotti su bokk dara du sotti léegi nag mbokk yi programme bi daal tambali tàmbali film bi daal tambali tàmbali njàngale mi daal di fi fira fi Muusa bëgg jaar ak fa firaw na bëgg a jaar Muusa ma Allah habibullah firawna aduwullah ñoom ñaar nag ñu taxaw est-ce que penc mii noonu la bu ñu ko joxee yàlla noppalu ñun ñëpp bu ñu ko ko xañee du ñu noppalu benn yoon sunu borom ne euh, ma ne yaayi Muusa nàmpal ko gis nga alxuraan waxut ne wa wulida Muusa déedéet ndax film enquête du ñu wane ci film bi ki rey kon yow ñii film ñooy enquête mais yow xam nga ki rey daa ngeen seetaan inspecteur Derrick xaw ma ana film yooyu te ndeysaan inspecteur la mu tudd Derrick nga xam ne enquete ni ko doon jàngaleek ni ko xame soo daan seetaan filmam yàgg moom yéenay ànd enquête bi di jékki-jékki rek wane ci génn kër ko dee waaye duñ wane ki ko rey ndax yow su boobaa enquête atoo bi ñooy enquête Mm-hmm. ka dee woon te suutul baqara di ko nettali dégg ngeen waaw enquête ba gis ni diwa ko rey moo tax gis nga yooyu la daara am malheureusement malheureusement ñun sunum réew benn bët lañ wax ne nag ko jongama ji di xoolee waaye duñ ko may mu xool ñaari bët waaw defe naa Oustaz Ahmed Dame Ndiaye moo ko doon jàngale ma nettali woon ko waa daara yi waa daara yi eh, Ahmed Sakhir Lo kokki ca rudd buun walla ca buun gis nga enquête kon fii yàlla tudd fi juddub Moussa tudd fi turu papaam walla turu yaayam déedéet ñun bu doon ñun dañ naan Lat Joor Jóob waaw Ngoone Latir Jóob il est né mille huit cent nangam nangam ca dëkk sàngam son père sa rewex jo en tout cas dañ wax daal <laughs> baay mu nga tuddoon nangam yaay mu nga tuddoon nangam nangam ñun noonu lañ koy jàngale waaye fii sunu borom waxut yaayam baayam dafa jékki-jékki rek jóg wa awhaynaa ilaa ummi Muusaa waaw sunu borom ne ma ne ma ne yaayi Muusaa booba nag yàlla xam na doom ji yaayi Muusaa am waaye yaayi Muusaa xamul doomam ji Mhm. gis nga pénc mi léeg-léeg couple am jëkkër ni bëggatuma ay doom ndax mënuma la na yor jabar ne man ay doom laa bëgg léeg-léeg ñoom ñaar ñëpp ñu ne bëggatuñu doom hmm. nu ñuy def matière bii tax am doom la ñuy def ca mbalit ma matière bii tax am doom lañu def ci mbuus def ca mbalit ma te ginnaaw yow xamoo est-ce bi nga def ci mbuus gi def ca mbalit ma eska ce boobu bu demoon ci jigéen jii du doon wàlli yu mu ku sax ku xëpp wàlli ca mbalit ma foo jëm kañ ngay tàggali ko ak mbalitati mais c'est très dangereux couple bu ne bëgguñoo am doom ah bon lu ngeen di bañ ci doom ngeen baal ma ci ton bi parce que je suis un peu énervé aujourd'hui lu ngeen di bañ ci doom te jàng xisab Moussa ak Firawna moom yaayu Moussa defoon pexe yooyu fu àdduna jëm kon ndamul Firawna nekk fa ba faw waaye couple buy sëy ni bëgguñoo am doom di wut ay mbuus di ci def matière bay tax am doom di sànni ca malit ma laa ilaha illallah mu yow ki nga li nga sànni jan doom la est-ce que ndeysaan sànni woo ab professeur est-ce que sànni woo ab technicien est-ce que sànni benn ministre bu aay est-ce que sànni woo benn sëriñu daara est-ce que sànniwoo benn président de la république est-ce que sànniwoo kenn xamul li nga sànni gis nga yaay Moussa mii yàlla naan ko nàmpal ko yàlla xam na doom ji yaayi Moussa am waaye yaay Moussa moom xamul doom ji mu am jan doom la suq mi ci bàlla gobar ki ji mi ci ñaani sunu borom rekk ay sunu borom sunu borom rekk sunu borom hmm? pexe yooyu nga am ci pénc bi pexe yooyu mi ngi am ci pénc bi di ko jàppalee na di ko jàppalee Firawna bëgguma am doom te ca koor ga sunu borom waxoon ne fal aana baashiruhunna wabtaxu maa kataballaahu lakum aana baashiruhunna wabtaxu maa kataballaahu lakum hmm. waaw mu ne léegi ku ay ni waaye na wut ci ay gi li tax ñuy joxe ay te mooy doom te mooy doom mbokk yi sunu borom ne yaayu Muusa nàmpal ko foofu la tàmbaleeg moom nàmpal ko ah bon waaw nàmpal ko bul ko jox biberon parce que du la doon bul ko jox xeeti meew yi ci pénc mi fii ak ñeenti weer fii ak ñeenti weer bu mu fi nàmp lu dul soowum nit waaw kon mu tàmbali ci jàngal ko lekk ginnaaw bi Moussa ñëwee àdduna te munta añee ceebu jën waxuma laa supp kànja <laughs> waaw moo tax sunu yaay yi yal na yàlla fayal ñu leen yaay yi am xam-xam ak yi ko amati ci bokk yam xam-xamu nàmpal yaay yépp ko amoon waaw tabarkàlla mareem ak ayda <laughs> seen émission bu neex boobu tabarkàlla Mariam ak Aïda Mariam sunu borom def ne yaaye Moussa nàmpal ko baat bi ëmb lépp nee nañ àdduna daan marka ci dàq nàmpal waaw ñoo ci dàq nàmpal waaw dëkk sàngam ñoo ci gën a sore nàmpal ñoo ci gën a tëlee nàmpal moo tax menn at coupe du monde daf leen na daj boole dëkk bi dàq nàmpal ak dëkk bi gën a tëlee nàmpal coupe du monde boole leen <laughs> dan yi nekk ay joueurs yoo xam ne buñ taxawee rek Alaaji Malick Ndiaye kontaan réew moo ma nekk réew moo xam ne la yàlla xam doy na ceet tëdd match bi tabarkalla <laughs> ala li xaal mbokk yi sunu borom nee na yaay Moussa nàmpal ko boo bëggee mu nekk un grand leader politique ko boo bëggee mu nekk un grand citoyen nàmpal ko hmm, maa la ko wax boo bëggee mu déggum réewam nàmpal ko bu bëggee mu xam li xew nàmpal ko boo bëggee mu am wér-gu-yaram nàmpal ko boo bëggee mu am kiis xelam neex nàmpal ko